ni bɛ ne fɛ ni kalema ma ni bɛ ne fɛ seli kuma duman fɔ n ye. ne bɛ de ne bɛ de fɛ bɛ kuma duman f'i 8 18 xëy na wax ma waxee Djiby dafa no noobaate mais c'est normal. ndax euh, jigéen bu baax mooy defar kër jigéen bu baax mooy mooy sagal jëkkëram te góor loo mënta am si àdduna te amoo jabar bu baax bu yeboo dangay dëgg rek ñu ne diw ngi nii mais képp kenn du la mille 2008 laa am sama jabar 2018 mi 10 ans de mariage mu nekk ndaanaan nekk woykat moom avant mi ñëw dafa fekk ma am sama carrière ba pare ñëpp xam ma ñëpp ràññee ma ba mu ñëwee dafa topp sama ginnaaw xoolul setluwul mu gumba tëxluwul fu ma ko yem loo mu yem fa lu ma ko wax loolu lay def suñu demee ay contrat sax xamul sax li signature contrat te nag woy bu may woy nii ak moom mu ni muy woy nii

ku déggul sax bambara wala ku déggul sax saraxule suñu sonorité musicale soo ko déggee da nga leen day sànni jarul sax ma ne innovation innovation am na ba pare si la musique man denk loolu suñu répertoire maam yi sax jox nañ ko ko tey musical lépp lu ngay def la musique man denk su amul si wàllum guitare si wàllum xalam si wàllum kora si wàllum tama wala jëmbe doo am lu la neex si musique lépp lu ngay def. kon nag la musique man denk bu may def man Djiby Dramé man danaa ne toujours am na innovation surtout way su amul ndeysaan neexul way su amul yette neexul xëy na soo déggee bambara da nga xam ne Djiby Dramé woy na woy yeete su yemee sax man ak sama maman chérie lu ñuy couple di joxalante sax di pelloo miy wax may wax am na ñoo xam ne dañuy toog seen salle di ay waay man bëgg naa doon maman chérie ay eh, waay man bëgg naa doon Djiby Dramé. sama premier fans fii senegal nit yi bëgg nañ ma de mais sama premier fans ku may su may woy sax daf koy sentir sama jëkkër la sama jëkkër la. man may idole ci man la bu su may woy day bàyyi yépp di ma xool. soo leen ko dégloo dëgg nga xam ne Djiby Dramé ak Mama Chérie avancé nañu si cadre law la cat si mélodie si wax macha allah aussi si message nga xam ne du question nag na ñu wayaan géeri rek pour ñu taraañu rek déedéet dañoo ñoo def communication pour ñu xam ne ndeysaan euh, du du ngiw rek la ñu mën a way du ñu mën a yeete soo yoree public kilifa public classe ak personnalité ak maanaa doo leen taxawloo di leen càmbar càmbar di leen yóbbu fu ne lu Youssou Ndour wax rek dama mojo mojo te law la ca sama public boppam ñoo jox force Big love on the girls.